diggante général diggante alliance Baldé ak Laurent Ndiago hey alliance Baldé daa bëgg a jëw xeex ak booy bi ñu door am njaay joxal Jóob am njaay joxal Jóob xeex xeex xeex kaaw kaaw kaaw kaaw eh wax na Ardo Ardo may ko soow Ardo Ardo may ko meew Ardo laay laa xoolal ma lii Alliance Baldé dem na Ardo Ardo may ko soow Ardo may ko meew ey Ardo Ardo la grand pam may moo ngi noonu reporter bu mag bi ndeysaan loo gis ñaari xale yi xeex nañ xeex bu métti mbetteel la am ci Laurent Ndiago ah. mu rëy laa ci am parce que foogu ma woon ni man la mel nii mais nag xale baa ngi yokk ci bind. kon nag na ko làmb bàyyi xel man maa la wax loolu. bëgg na ko jaral na ko. daa ñëwoon taxawaayu taxawaayu comédien. non mais génn na foofu ami Collé. man maa la wax loolu kii di Albouri. kii di Lona. nañ leen bàyyi xel. Eh. xeex nañ xeex bu metti ñoom ñaar. ndeysaan ndeysaan alliance Bolde dem Ardo. Laurent wa ngi toog di ko déglu. mais nag dama koo seeti mu ne ma dama koy dóor bu daan. bu bu bu mu am confiance boobu nag ba bëre waale ko parce que lu mel nii ko dal mën na ko dalaat. nee ma ba bi da koo ñemee. da koo ñemee. waaw moo tax am na ci mbetteel. te alliance alliance daa toog ci six kaw. am kole dem ànd du dara ci làmb. Ah. maa la wax loolu. abi ngay waxaat ak ñoom. avertissement. avertissement ku ci ne. kenn ku ay coups irréguliers la. waaw dañoo déplacement latéral pour Laurent Ndiago Alliance Baldé topp ko Alliance mi ngi ko topp pied droit ak pied gauche cokkaas na da koo bëgg a cordoor ko daje ko daan na ko. Ah, Laurent Ndiago daan na Alliance Laurent Ndiago daan na ba la ilaha illallah Laurent daan na Alliance. mu ngay dem ca sapeur pompier lu mu leen di wax mu ngi leen di nuyu mu ngi leen di nuyu. daray comédien ci moom. daray comédien nekkul ci moom. daray comédien ci moom maa la ko wax. na Alliance nañ ko bàyyi xel maa la wax lii. daan na Alliance Alliance Baldé am na mbetteel mu rëy Alliance Baldé dafa jaaxle ma ngay fecci ma ngay jaayu wax na dëgg wax na dëgg. Aliou Gueye nga noonu ménagère ba ngay coppi coppi ménagère ba <laughs> nee na ko wax na ko léegi. <laughs> waaye Laurent daan na Alliance Baldé. Alliance na. tibb na suuf. jox ménagère ba booy muur la ko yóbbu. ndeysaan Aline Gueye ba dugg na ca géew ba. ndeysaan maa la wax Aliou Gueye fu mu jëm. fu mu jëm fu mu jëm fu mu jëm fu mu jëm. maa la ko wax ah dëgg la fu mu jëm moom Aliou Gueye ma nga jëm <laughs> moo ngi noonu Laurent Ndiago nee na abugu nene abugu papa hee kaay Laurent kaay bëre. mboose la may ko noonu. ayca te tees metees. dafa nag metees metees. bilaay barki Alaaji Fàllu. du booy. nañ dem bés kanam de maa leen ëpp doole. waaye sëñ Fallou kenn du ko duma damaa xeex ak moom mu bëre ma daan ko. Paul am na li ma la waxoon. guddi ñëwal wala suba fajar. eh ñun dañuy décembre gi. kan la. gabaar gabaar gabaar. xool léeg-léeg dañuy xuloo ndax xam nga la dañuy teg ay sañ-sañ yoo xamante ne day métti ñun. mais tetes metes la. looloo demee fetes metes. mais ñëpp jëloon favori bi joxoon alliance Fodé. nga ñëw wane maanaam man barki allah di sant ñëpp di jégalu non sax su ma ñëwee ngeen ne damaa ma man ni ma bëgg a tool naa ko tool mais kata moori burkaani kasumay bale bilaay maa ngi sant àdduna foo jëm la daa tey nowel la loo añee tey ah. foo jëm foo maa ngi leen sant avant tout bi ni ngeen bëree ni ngeen bëree da nga dina ci bëri du maag ñoom barki allah ji fàll du ma ah, maanaam batis moo bëre loolu yi batis da mais ñu ci kaw jël ko ci dama xaa njaxatante daw jël mu contre ma ma kor ko ba mu moor dóor ko ay uppercut yu neex mu dem naa ni soow ñëw ma dawaat non ah, bu baax daa entraîné quoi mais ba ma xa daanee mu naan woy sama nday yàqu naa ah, ne woon naa leen waaye sañ Fallou kenn du ko duma sama maam mooy Fatou Mbacke sama papa Babacar Mbodj man Abdallah sa adversaire ñan ñoo ne sa kanam ñan du wax non moom du ma tëkkum. tey Noël la loo andi. Eh, wuy ma. Eh, Laurent eh. yërëm xonk bi ñoom gars ñooñu ko mayut. mais wuy ma dimanche xam ngeen lu fi a ah Gaye ak ku daan ma jël ku daanu bëgguma. Ah, tey Noël la tey loo añee Noël. tey bi ngay ñëw.